waaw man feebaru jalis moo dal eh, feebar dafa métti trop parce que dafa laaj maye parce que chaque séance soixante cinq mille laay fay te xam nga loolu bu fekkee liggéeyoo tamit doo ko mën bu fekkee amoo yenn moyens yi tamit doo ko mën da ngay góor parce que boo naree feebar ba pare di faj sa bopp te amoo moyen moom xam nga day xaw a métti heureusement sax yàlla dimbali na ma am na ay gars yoo xam ne sax dañ dañuy góorgóorlu leen rek ñoo si xaw a jàpp sax des fois di ma dimbali sax dima ma fayal yi mais xam nga nit ñi fii moom gars yi bu fekkee amuñu mooy moyen bëgg la dimbale tamit des fois dañuy dem ba toll benn moment boo xam ne sax après dootuñu dootuñu ko mën xam nga bëgg a jàppale bi dafa di nekk sax mais xam nga rek bu fekkee xaalis bi nekk fi tamit day xaw a metti quoi. non feebar daal nu may def daal loolu daal mënu moo ko expliquer nit quoi loolu daal. metti na trop metti na trop parce que xam nga koo xam ne da nga daan xëy di liggéey ba ñaw boo doon dox sax dana kii moom du dox ndànk xam nga da nga dem ba pour nga dox fii ak si buntu kër gi sax problème la xam nga loolu moom metti na ko parce que 4 mois mi ngi nii maa ngi tëdd xam te koo xam ne da daan liggéey rek xam nga moom day xaw a métti ba pare bu fekkee amoo moyen bëgg fajaat sa bopp tamit day xaw a métti quoi waaw mais maa ngi ñaan moom ñëpp jàpp si quoi. sonn na trop. da mun a wax daal feebar bi moom feebar bu métti la quoi feebar doy waar la parce que instant yi même bu dara sax yow lekk yi ñu lay rek dafa bari da am problème lekk da ngay dem ba sax da ngay feewul xam nga instant yi boo waree def jalis dafoo jalis instant yi sa yaram bi yëpp day métti xam nga faw nga def jalis ñu filtré sa deret bi pour nga am jàmm mais instant yi may wax ak yow nii sax dama manqué deret. parce que instant yi deret bi normalement instant yi douze laa war a am te maa ngi ci six même ni may xoolee nii sax dafay fulu du ma xool normal comme avant avant may feebar ni ma doon xoolee instant yi xool nit ñi nit ñi dañuy fulu ci man ndax manque deret xam nga même booy sax keroog rek dem nañ maye ji deret sax pour ñu sol ma sax mais ba léegi nii sax yi joxaguñ ma te xam nga hôpital yi moom fii moom ba amul jàppale moom pour nga faju day xaw a métti quoi. instant yi feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne. soo amul xaalis moom pour nga génne si du yomb quoi. ñu jéem a jàppale rek même bu ñu ma mënee yóbbu Europe ma dem faju ci sax wala fii tamit ma mën faju tamit wala ba ma mën a jël en charge tamit parce que man bu fekkee man la moom mënu mënuma faj sama bopp moom damay góorgóorlu rek ñi may jàppale tamit am nañ yéene bi mais mooy tamit néewu fi xam nga bu fi mooy néewul tamit te yéene bi ne fi tamit xam nga yow yaa gën a xam rek nu muy demee chaque jour. des fois nga toog feebar bi daaneel la fi xam nga dem si guddi rek moo si mujj affaire daf ma xamoon jëngal fi xam nga affaire bi moom daa xaw a métti faa xam nga doo mun dox sax fii ak buntu kër gi comme instant yi bu njëkk sax daan naa dox sax ci xaw a dem doxi samay soxla sax mais instant yi mënatuma ko xam nga mais yi te nu ma tëddee nii moom daf ma xaw a métti trop man maa ngi woo Bamba Fall maa ngi woo Cheikh Ba maa ngi woo Youssou Diall xam maa ngi woo Paate Ba maa ngi woo Seydou Gueye maa ngi woo May Muna sek Seck maa ngi woo Cheikh Seck maa ngi woo maa ngi woo Eva Marie maa ngi woo Sidi Samb waaw maa ngi woo ku nekk maintenant rek te mun ma jàppale rek maa ngi lay woo. yëpp yëpp